donc nous sommes dans un système boo xam ne euh, comme je disais tout à l'heure dañuy forcer à que ñuy réagir mais pas ñuy agir donc gëj nañu agir dañuy réagir tout le temps donc Sirius c'est une maison d'édition boo xam ne indépendante généraliste donc euh, nous sommes là pour la littérature moo ñu tax a jóg littérature bu ñu nee littérature on parle de la pensée aussi tam xalaat xalaat bu sell Euh, parce que comme ni mu ko waxee rek euh, yàgg naa ko ko wax moom euh, saa ñu daan waxtaan boobu ñu ngi juble jublaguñu sax si liggéey livre bi plutôt jëndagul woon maa ngi naan ko livre bi pour ñu fi toog livre bi du pour ñu koy liir tey livre bi c'est un dafa nekk livre boo xam ne pour dans cinquante ans dans un siècle ñi nga xam ne dañuy ñëw bu ñu ñëwee ils seront perdus du ñu xam du xam parce que dañu nekk benn phase de colonisation boo xam ne dafa yegg benn stade boo xam ne ce qu'on appelle l'aliénation en ce moment foofu lañ toll donc lalienation moom mooy lan euh, terme bi dafa xaw a yaatu mais terme bu ñuy li ñuy euh, définition plutôt bu dafa xaw a yaatu mais définition bu ñuy intéressé fii mooy lan mooy nit ki soo ko bëggee tëj réduire ko en esclavage li ngay njëkk def moom mooy euh, démanteler plutôt culture am foog culture bi nga xam ne moom la gëm moom lañ koy yaree fa la màggee foog nga gëmloo ko nii lii existé wul amul une fois que egg nga stade boobu rek foo ko bëgg a yóbbu da koy yóbbu donc euh, si sur ça lay duggee si première partie livre bi parce que dama ko ne tous euh, yàggul tuuti ma ne ko bu ñu yemoon si premier partie bi rek édité ko rek jeex na parce que c'est une première partie boo xam ne dafa. Euh, képp kuy par parle même pas sénégalais sax mais képp kuy africain boo ko liidee dañ ciy gis sa bopp parce que ñun dañu am benn culture riche boo xam ne dafa yàgg euh, disons euh, influencer monde bi à tous les niveau à tous les niveaux yàgg influencer monde bi mais gëmuñu ko pour certains xamuñu ko sax donc c'est comme si que ñun on est né nu mu tuddati en 1960 dafa mel ni Sénégal 1960 la judd parce que bu ñu xoolee suñu vestigiaire euh, ouvrage yi ñuy jàngal à l'école yëpp à partir de là la 1950 le Sénégal commencé 60 plutôt le Sénégal mel ni commencé exister alors que ñun dañu nekk euh, nu mu tuddati un peuple boo xam ne dañu descendre ci ay lignées yoo xam ne de penseurs de grands penseurs de grands philosophes donc foofu tamit foog ñu euh, gëm loolu et la structure éditoriale Sirius dafa gëm loolu dafa gëm nii dafa jot que ni euh, sunu pensée sunu culture ñu nanguwaat ko ñu nanguwaat ko comme je disais pas pour ñun parce que ñun soxlooñu ko ñu fi toog yàlla may na leen ah, peut-être am nañu benn euh, benn barda intellectuel boo xam ne mën nañu dissocier les deux waaye 99 pour cent de la population sénégalaise peut-être maa ngi exagéré ba léegi mënuñu comprendre loolu pour ñun euh, bind lire mi ñu ngi koy commencé dans l'époque coloniale pour ñoom loolu la ñu xam ñun ñëpp loolu la ñu xam fedd la ñu xam ah waaw donc même les autres ouvrages yi nga xam ne sax c'est des ouvrages africains ñu ngi ñoo koy jàngal à l'école sax fu mu jógee ce des ouvrages homologués par la France amul benn ouvrage boo xam ne tey ñu ngi koy utiliser te amul benn prix francais bu mu gañewul un ouvrage boo xam ne sont des sénégalais ñoo ko tànn proposé ko l'école sénégalaise bu amee de benn ñaar lay doon mais la majeure partie des ouvrages yi nga xam ne ñu ngi koy jàngal ñu ngi jàng jàng si jàngee ñun euh, suñu doom yi si ñu jàngee boo moytu yeneen génération yi ñëw si la ñuy jàngee ce sont des ouvrages yoo xam ne boo xoolee édition première bi wala réédition yi dañ ci gis ni remporté na concours tel concours tel te concours yooyu lan la ce sont des maisons d' édition françaises yoo xam ne ñoom ñoo ko euh, ñoom ñoo ko teg ñoo ko instauré donc mm, la structure Sirius dafay delluwaat euh, jox. les auteurs sénégalais, africains de manière générale, et le des les auteurs du monde entier. Donc on est, nous ne sommes pas Donc, mais euh, l'essentiel est que, est que tey euh, cette aliénation wala cette fracture bi nga xam ne am na euh, nu mu tudd dans la pensée du du ma ne littérature kese rek parce que littérature benn euh, portion la sur la pensée humaine mais actuellement dafa am benn fracture boo xam ne dafa exister sur la pensée humaine naka la ñuy def pour réduire ko waaye dindi kenn du ko dindi kenn du ko dindi comme je disais tout à l'heure euh, nous avons été conditionnés à ce que chaque fois ñuy réagir mais du ñu agir mukk donc nag euh, comment faire pour que cette réaction léegi mu jëriñ ñu que ñu mën ko yóbbu euh, à une portée boo xam ne euh, importante ba nga xam ne tamit euh, ñëpp mën ko mën ko jot moo tax ñuy rechercher des ouvrages comme ça donc ouvrage bi tey euh, dañ ko commencé bind wala dañ ci commencé liggéey dans la bonne humeur parce que ku xam l'auteur xam ni moom loolu lay dund c'est la bonne humeur donc génne nañ ko si la bon humeur présentation bi aussi la bonne humeur donc moom te comme ça noonu lañ koy jàppee euh, saa su nekk donc c'est un ouvrage boo xam ne euh, comme souvent dañu naan tous les livres son importants tous les livres sont importants parce que libre bu nekk soit dina la jàngal dara wala dina la jàngal dara si auteur bi mais am na lu mu lay jàngal forcément lu livre bi lu mu ñàkk ñàkk information am na lu ñàkkum information bu bi ci nekk sa jàngat la